Karim nag sunu balu mëq dóom la xam nañ fi ñu koy dóor duñ fekk fu jàpp rek ñu vise di ko pëli pëli déedéet dañuy xool fi cible mi dañuy dóor ko fi te buñ ko dóoree am ndam nañu ne ci dernier mandat euh, président Abdoulaye Wade doomam fesoon na ci ñu tudd ñu bari tuddee ko ministère du ciel et de la terre ba mu suscité beaucoup de polémiques au sein du parti ak ci yeneen sénégalais yi yow en tant que ku nekkoon foofu yan leeral nga ci indi waaw xam nga ministre moom benn élément la ci gouvernement man bu Karim dee ministre du ciel et de la terre premier ministre bi xaw ma ban genre la war a nekk. Mhm. parce que bu fekkee ni dañ ne la yaay ministre du ciel et de am koo xam ne si doomi jàmbur la ñu jël ko jiital la kooku kon moo la ëpp ay prérogative kooku moo la ëpp lu mu war a def donc nit ñi nan bàyyi loolu nan bàyyi Karim mi ni jiiñ donc fu ma profité may profité ci occasion yi pour wax benn mbir mhm. mais Karim Meïssa Wade doomi Ablaye loolu yàlla moo ko def mais mënul na nekk doomam pare du nekk militant mhm. ana Barthélémy Dias ak papaam bokkuñu fu ñu nekk Cheikh Bamba Dièye papaam moo yoroon parti boobu mu donn ko loolu laay mën a wax mu donn ko Karim Meïssa Wade militant la avant muy nekk lenn luñ ko mënta luñ mën a luñ mën a yàqee deram fii ba pare ñi nga xamee ne que wan nañ ginnaaw Ablaye Wade nan bàyyi li ñuy wax ay ban fii nekk nekkuñu fi bitiku jàmbur boo fi teel bàyyi jàmbur doom ji ñëw di jël tàngalu sosat di macc ne leer ni bu màggee day jël bitigam c'est ça la réalité li ma bëgg wax foofu damay bañ nit ñi taxé ma d'antidémocratique non parce que contexte bi carte bi préyoo démocratie manqué woon na Sénégal contexte bi nga xam ab que Abdoulaye xeex na ba jot partem démocratie manqué woon na Sénégal Abdoulaye Wade xelam ci li mu nekk mooy ñun ak suñuy ñoñ ñi bokk parti démocratique sénégalais bu fekkee mën na noo xeex wax ak moom ba nga xam ne que liñ defoon ba nangul ñu Karim nekk candidat mën nañ ko def ba yàlla may yëg ci nguur mais loolu ñun lu ko ci ñun lu ko ñun la ko yaakaar ça ne veut pas dire dafa imposer Karim wala dara Karim c'est quelqu'un qui a montré ses preuves ci liñ ko jox muy liggéey mais ñu montrer ses preuves ci li nga xame ni que gor fa yóbbu dégg nga ni jooy na wala dégg nga wala nangam moom muñ na ko ba génn ci donc c'est quelqu'un bi nga xamee ni que ñiy wax nii di tooñ Karim mag naan ko nangam ak nangam mais nan ñu may jàmm parce que Karim mënta nekk dowaa booy defar meeting sax nga yuuxu ko ñaan ko mu yónnee t-shirt ah, kan moo ko yuuxu ñaan ko mu oh non damay wax ni responsable yi fi nekkoon di mhm. déplacé wu di dem ba dowaa mhm. ñun mosuñoo dem dowaa ñi doon dem Doha di wax ak Karim lan fa jëlee xam nan ko la leen Karim wax xam nan ko seen i intérêt bopp moo leen fa yóbboon léegi loolu feeñ na. parce bu fekkoon ni bi ñu demee Doha waxi Sénégal la ñuy wax waxi Karim la wax bu ñu ñëwee fii changement bari dina am mais defuñu ko am na ñoo xam ne dañoo toogaloon seen bopp pour bëgg uniquement Karim sacrifié wu ñu jël sa place. Mhm. loolu nag mi du question ni Abdoulaye moo ko bañ mais militants yi ñoo ko nanguwul. mais tamit ci loolu militant yu bari ñi ngi ŋàññ Karim Wade parce que li ko yóbbu Dowa ba tey xam nga lëndëm na ci bopp sénégalais ñu bari xamuñu ko te yaa ngi wax ne ñu doon dem ba Dowa di ko wax mhm. te it am jàpp mhm. bi mhm. ndax dañu jàpp doomam traqué ko yóbbu ko Dowa te leerul ci bopp nit yi waaw d'accord xam nga li war a bokk ci wax nit ñi bu fekkee ñaar nit ñoo séq mbir ñaar ñëpp leeraluñu nit ñi mën na am lu leen ëlëm bu fekkee ni ñaar ñëpp danoon noppi ne tak nit ñi dina mel nit ñi leen génne nañ ma ci force yóbbu ma ci force mais tamit ndigal tax na ma dem xam nga moom foofu lu mën a yem. Mhm. mais li gën a garaaw ki ko def. ki nga xam ne que da nga da nga jàpp Karim Wade ni xaalisu Sénégal la luubal ñu xool fi ñuy xool yëpp comme comme ni mu nekk ministre du ciel et de la terre. Mhm. ñoom ñu remuer ciel et terre gisuñu santim ñu créer seen i accusation créer seen chef d'inculpation tëj ko ni sénégalais yi la kii dafa yoreel nangam ci ay milliards waaw. waaw comme loolu lan ko wax te sénégalais ñoo ko moom Karim génnewul boppam Karim jour bi muy génn di dem fii avion jugut réseaux sociaux amul bu ndox mhm. loolu nag Karim amul doole ji ki am doole ji mooy kii ko jàpp fekk ko këram yóbbu ko moo utiliser même doole bi jàpp ko génne ko kon sénégalais yi benn mhm. war na noo laaj kooku lu tax mais war nañ ko ne ana suñu xaalis bi nga jiiñ kii mais li metti nit ñi gën a metti nit ñi mooy ñu jub ay élection ñu ne ko boo ñëwee joxe xaalis mhm. mooy contrainte par corps bi waaye soo ñëwul ñoo la waral jàmm xam nga loolu aussi dafa xaw a lënd ci xolu nit ñi. mais encore une fois Karim leeral na wax na ni génn ko ci circonstance yoo xam ne si euh, umpul ñu bari dem na jot na ndigalu nag toog te nag doomi taalibe la moom taalibe la ci boppam. li ci des c'est c'est un tout petit peu social. parce que kilifa yi ñaan ba mu dem yàlla def na yóbbu na leen yàlla yàlla yokk seen leer ku ci mel ni sëñ Sidi Mokhtar Mbacke dañuy yem foofu dégg ndigal te xam ni lim ñu wax mi ngi suñu kanam dina ko teg suñu bët te xam ni lim ñu ñaanal yàlla dina na ko nangul est-ce que jàpp mën nañu jàpp ne Karim Wade dina dellu siwaat Sénégal wala ba tey dellu seen wóorugul waaw xam nga Karim nag fii la dëkk titre foncier am nekk fii mu doon na ko ci bàyyam muy point gii Karim amul fenn fudul Sénégal Sénégal dëkk papaam di sénégalais moom muy sénégalais gisuma lu koy tee ñëw fii mais nag xam nga politique dafa am stratégie man damay faral di wax ni fetal bu ma ko yoree mu yor benn bal ma am cible wallaahi yàlla na yàgg waaye dinaa góor góorlu ba bu bal bi dee génn moom cible bi lay attaqué direct mhm. du ma ko saax-saaxee mhm. Karim nag sunu balu mëq doom la xam nañ fi ñu koy dóor mhm. duñ fekk fu jàpp rek ju visé di ko pëli pëli déedéet dañuy xool fi cible mi dañuy dóor ko fi te buñ ko dóoree am ndam